ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall wa kullu aamin wa antum bi xayr wa kullu aamin yàlla ñu bokk fekk déwén te weesu ko tabarakallahu jóge nañ ci ramadan al jóge nañ ci ramadaan al mubaarak buy del siwaat yàlla ñu fekk nim ñu fi bàyyee bi muy dem ñu fi fekkoon daaw te ñu wóote ko ren ca faatu yàlla na borom bi yërëm leen ca tukk yàlla nañu bisu jàmm ci indi dara ci feebar yàlla na borom bi saafara leen tabaarakallaahu te nangul ñépp ndax koor moom mooy koor waaw koor mooy koor li ci borom bi jublu ba tax mu sant nu ko yàlla nañ ko am ba weesu ko noonu ci suratu atuur tabarakallahu noo ngi ci aaya e, fukk ak juróom-ñaar waaye li ñu ko baaxu jo def mooy jàngal aayaat door a ñëw ci jéem a firi ak jéema tekki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون muttaki'iina ala sururin masfuufa wa zawwajnaahum bi xuurin iin walladina aamanuu wattaba'athum durriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim alxaqnaa bihim durriyatahum wa maa alatnaahum min amalihim min shay kullu mri'in bi ma kasabat rahin bi ma kasaba rahin wa amdadnaahum bi faakihatin wa laxmin mimma yashtahuun yatanaazacuuna fiiha ka'san laa laxwun fiiha wala ta'biim ka'sun ka'san laa laxwun fiiha wala ta'thiim sadaqallaahu al-aziim wa ballax rasuluhu al-karim wa nahnu ala ma qaal rabbuna wa ma lana min ash-shaahidin allahumma ij'al al-qur'ana lana fi dunya qarina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyaamati shafi'a wa ala siraati nuura wa ila al-jannati rafiqa wa baynana wa bayna sitran wa hijaaba wa ila al-khayraati kullihaa daliilan wa imaama bi fadlika wa juudika wa karamika yaa akramal akramiin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nag ci ak seen njaboot di jéggulu soxna yi di jéggulu sëriñ si di ñaanal sëriñi daar yi yaayi daar yi ak dongay daar yi yàlla na ñépp xi yàlla xiir leen ci dugal seen loxo ci daar yi dugal seen xel ci daar yi ak seeni xalaat suñu mbokk Ibra Njaay Pikin ginnaaw raay bu duggee ci wax sa xalaat ñaari minitam yi am na ci seconde yu muy jagleel jàng daare alxuraan yi rawatina daare kokki <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér Ibra Njaay Pikin ginnaaw raay ay ñu toll borom bi daf doon wax lu am solo inal mu innal muttaqina ñi nga xam ne dañ ko ragal innal muttaqina ñi nga xam ne dañoo am ak ragal yàlla bu jëf bu diglee ñu jëf bu teree ñu bàyyi ñoom boo léggee fii jannatin ña ngay nekk ci biir aljanna ya wa naim ak xéewal faakihiina di foytu bi ma aataahum rabbuhum ca la leen seen borom jox ci wàllu foytu furweeg ak i bokkam wa waqaahum fegal leen rabbuhum seen borom azaabal jaxiim mbugalum jaxiim yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci tabarkàlla malaaka yi naan leen kulu lekk leen washrabu te naan waaw kulu lekk leen washrabu buute naan waaw dañu mas a woote benn concours tari alxuraan benn concours tari alxuraan benn ndaw kundaa ca xale ya bokk ca ca concours ba waaw bi mu agsee ba ñi nga xam ne ñoo yor yëf yi daal di ko ne baada audu billahi min shaitan rajim ibda min qawlihi taala daal di koy jox laaya mu ne man day kuntu xafistul quran kulla mokkal na alxuraan lépp ñu ne kon daleel ca aaya sàngam mu ne nasiitu fàtte naa lépp ñu ne ha mu ne ba mu des jenn laay laay ji ñaari baat laa ca jàpp ndaw ko ndaa bi bi muy ñëw ci concours bi nee na mokkal na alxuraan baqara ba naasi mi ak toog ba gaa bu kër bi ko bëgg a déglu jox ko fi muy tàmbalee mu ne fàtte na alxuraan lépp ñu ne ko waaw mu ne ba mu des jenn laay laajee ñaari baat ñu ne ko jan mu ne kulu washrabu lekk leen te mu ne boobu moom fàtteegu ko <laughs> mu ne ko ndaw ku ndaay yu bëri baat boobu kuloo lekk leen washrabu te naan joxe ndigalu lekk naan mu ne ah, mu ne baat bu moom fàtt ñaari baat yi fàttewu ko ci alxuraanul karim lu ko mooy nag fàtte na ko mu ne ko ah yow de yaa kër ma nga raw bi bu fekkee ñi koy organiser duñ ñëpp ñu ay ndaw ku alakuli xaal borom bi nee na kulu lekk leen washrabu te ngeen naan hani an allahu akbar hani an ñu ndokkale leen ko hani an ñu massawoo massawoo leen ko hani an ñu dàmpe leen ko bi maa kuntum amul ca la ngeen doon jëf ci àdduna tey moom mu ne am ne lekk ak naan rek amul fay amul joxe prix mukk joxe dépense xewi na waaw joxe dépense xewi na allahu akbar kulu lekk leen wasrabu te ngeen naan hanii an waaw ñu ndokkale leen ko ñu dalale ko seen xel ñu dàmpe leen ko bi ma kuntum ci sababu la ngeen nekkoon taamaluuna doon ko jëf hmm? waaw waaw moo tax jëf am na solo lool jëf am na solo lool waaw jox leen ndigal lekk jox leen ndigal ci naan waaw xam nga fi ne bu ñu wooree ba timis di jot lañu joxe ndigal gisaan joxe ndigal kulu lekk leen wasribu te naan xataa yatabayna lakum alxaytul abyadu min alxaytul aswadi min alfajri suñu borom joxi ndigal moo tax koor lu yéeme la loo xiif-xiif loo mar-mar-mar loo bëgg-bëgg ndox doo dese ba di dese nag fi muy gën a yéeme ngay dese ay dix minutes cinq minutes jëm trois minutes waaw bu dee mel soxna Jóob yaay Maodo ca Pikin Ikotaaf yàlla ko yàlla yërëm <laughs> ceetit soo bàjj jàkka ja na naan naan jot na mu ne mu ne Alioune Sall waxagu ko mu ne waaw télé ba wax ko mu ne yaa xam de rajo ba wax ko mu ne yaa xam de moom daal rajo baa ngi ci taabal ji mu teg rek teg tàndarmeeg ñoom seen yooyu moom daal lii feeg rajo si FM néewut dog jot na ci Dakar ak lu ko wër mu nee na moom du naan <laughs> waaye loolu ci ci koor lu yéeme la dem bay desee quinze minutes dix minutes te it euh, dafa mel ni sunu borom tabaaraka taala ci ni nit ñi di seetlu mooy bu dog xasee des trente minutes day day mel ni montre bi day taxawaalu <laughs> mais mel ni montre bi day taxawaalu ñëpp bëgg mu gaaw rek ba mu agsi waaye ñëpp yi déglu ndigal rek dog jot na ci dakaar ak li ko wër alhamdulilah suñu doyen Hadj Moustapha gi moo koy jiite ndeysaan waaw tubarkalla dog jot na ci Dakar ak li ko wër alhamdulilah daal ni allahumma lak sumtu yàlla na ko yokk wér borom bi nee na ginnaaw lekk geeg naan yi ginnaaw lekk geeg naan muttakiina suhuunu muttakiina suhuunu xam nga li tax lekk geeg naan gi mat mooy lekk ba noppi naan ba noppi suhuunu suhuunu ci wolof mooy ku tëdd tëddinu ku yor dara <laughs> tëddinu tëddinu ku yor dara nga xam ne loxo bi lay samp teg ca lex ba fab benn tànk ba gàll ko ca ba ca des di sekkaritu <laughs> di sekkaritu boo demee gànnaar boo tëddee noonu la ngay añe bokkut ak boo tëddee tàlli la ngay añee ñoom tëddin wi rek benn message la boo leen di jox moo tax ñoom seeni seeni salon ak waa jamaag dëkk yu ma noonu bu la neexee toog ba mu neex la nga tëdd ndax mat la xeetu mat la la bu ñuy teg ci suuf ndax ñoom alxuraan moo leen jàngal yooyu ñun nag salon yi Europe moo ñuy jàngal salon te salon européen ba doo mën a tëdd boo tëddee sax dañ lay dañ lay teg ku xamul dara waaw dañ lay teg ku xamul dara walla ku dëkk ca foofu ñu wax sunu borom nee na kulu lekk leen washrabu hani am bi ma kuntum taamaluun muttakiina allahu akbar muttakiina suhuunu muttakiina toog toog waaye toog toogin woo xam ne hayatul madja tooginu tëdd la ala sururin min zahab waaw mu kàllala bi dur wal mustafa baaduha ila baad seet di suhuunu ala sururin ci ay lal ala sururin ci ay matla masfuufa yu ñu ra yu ñu rangale masfuufa yu ñu rangale ila baadin ka xawli ala sururin mutaqaabilin wa fi l hadis inna rajula la yatakkiu l mutakki miqdaara arbaina sana maa yataxawalu anhu wala yamullu yaatihi mastaat nafsuhu wa ladat aynu waaw waaw tabarakàllah axrajahu ibnu abi xaatim hadis bi nee na hadis bi nee na nit dana suhuunu yowmal xiyaam quarante ans te du toqi suhuunu yowmal xiyaam quarante ans te doo toqi allahu akbar ndax suhuunu fii boo ko defee dix minutes xaw a toqi nga walbatiku fële fee nag nit dana suhuunu quarante te du toqi yàlla rekk yàlla mooy yon yonent yi ko dee danga nga waaw nee na du toqi du walbatiku dana te lépp loo xam ne bakkanam bëgg na ko ñu indi ko ko foofa lépp luy bànneexal bëtit ñu indi ko foofa muy xool masta walla wala zaraaynu loola lu neex la ñu teggil góor ñi dépense teggil jigéen ñi demum marché ak dugg waañ teggil góor ñi joxe dépense teggal jigéen teggil jigéen ñi dem marché ak dugg waañ waaw am na jigéen ñoo xam ne dugg dem marché tabarkalla mu nga wax wa zawajnaahum ñu may leen fa ay jabar bi xuurin ayn jabar yoo xam ne xuurul ayn la doon bët yu weex tàll per bu ñuul kukk waaw wax nañ ci bind bi weesu ne xam naa nogay moom bu demee buñ ko tëggaatut du ca mën a ànd ñuul na ñaaw na gàtt na jëbërëy na lex na lu mu sol mu ëpp ko bu fa demee ca ñooñu xóor la iin waaw rekk tabarkàlla foofu lañ tegoon sunu baaram bi ñuy bëgg a dem ca julli ga ko di tega tabaarakallahu dem na guddi wen gee ko gën a jege waaw gu jëwin gi moo ko gën a jege yàlla nañu fekk fekk leen fi waaw yàlla nañu fekk fekk leen fi mu nga mu ñëw nag ci wallazina amanu ña gëm wallazina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañ wallazina mag ña nga xam ne amanu gëm nañ wala siina na parents nga xam ne amunoo gëm nañ waaw wala siina na baay nga xam ne yaay ya amunoo gëm nañ wattabaathum topp leen ca gëm ga wattabaathum topp leen zuriyatuhum seeni doom ak seeni sët bi imaanin ca gëm ga alxaq naa bihim yéegal nañ leen ñoom ñoom doom yaag sët ya alxaq na bihim zurriyatahum seen doom yaag seen gëm ya bihim ci ñoom maanaam jamono day ñëw li baay manoon doom du ko man jamono ñëw li maam manoon baay du ko man ndax lii nëxal jamonoy doom nëxalutoon jamonoy baay li nëxaloon jamonoy baay nëxalul jamonoy maam hmm? waaw waaw waaye borom bi tabaaraka wa la di di di moom daal mu xaw ma laa bëgg wax sax <laughs> waaw kenn xamul lay wax rek jamono xam ngeen ne masoon na fee gën a neex a jàmmoo yàlla waaw am na jamono joj yi daan nëxal penc mi bëriwu fi woon yi daan yàq diggante yi bariwu fi woon télé yi taqale dëkk yi ak dëkk yi bariwu fi woon téléphone yi taqale penc yi ak penc yi bariwu fi woon télévision mi indi eh, mi indi culture bi mu bëgg ci nit ñi nekku fi woon loolu taxoon na magi démb ya ña cay maam ak ña cay bàyyi def lu baax yomboon ca ñoom walla gën a yomb ci ñoom tey tey boo demee réew yu mel ni màkkatal mukarrama euh, def fa lu baax daa mel ni di gën a yomb ci yenn réew ya boo fa demee waaw di gën a barki démb ci jotaayu oustaz Aliou yu am solo yi fan dem daan def ci koor gi yàlla na ko yàlla yokku wér muy wax ne bi mu agsee ci gàddaay yonent bi jóge màkk ñëw ma madina mu ne tey am na ci suñu réew mi ay pénc ci pénc mag yoo xam ne boo ne foon yoxoos samp fa say néeg ca ngay gën a mucc ci am na barab yoo xam ne boo fa sampee say néeg léeg-léeg nit ñëw ci capital bi fekk si ñi fi capital bi waa capital bi walbati say doom def leen ni doom yi ñu fi dëkke ñoom ñépp nu bokk yam ilimaan joo xam ne eh, soxna si muy denc ak soxna yi ci pénc mi doo leen xàmmee doomam it ak i doomi pénc mi doo leen xàmmee li leen ko yóbbee mooy pénc mi mooy mooñ mooñ yooyu waaw tabarkalla defe naa dégg nañu <laughs> sunu sunu sunu sunu ustaas boobu euh, tubaarkàlla wala boog kuccaa yàlla ko yàlla yokk wér waaw kàddoom yi am solo yi nga xam ne benn message la bu jëm ci mboolem koo xam ne kii yaa ngi doon waaraateek waxtaan ci ci koor gi buñ ko nangoo buñ ko nanguwul waaw message bu am solo boo xam ne jataay yooyu nee na jataay yi ki toog di ko animer fukki weer ak jaar ak nii moo ca nekkoon mu ñëw tey soppi di gis rek solu genn col rek toog ustaas yi waru ko nee na mu leen di laaj ku ca nee na jariñu ca kenn mënu koo def la doon yoon mooy ustaas ba toog yor ya ña daan anime dem noppalu ji ba weer wi jeex yu mel noonu la ko waxe su ko defee kon jumtukaay yooyu nga xam ne moo ni ci pénc mi di mooñaat nit ñi ku jóge ca kaw ga ñëw boo fi amee diir moom jéem laa mooñ su ko mënee def ko su ko mënul jéem ko borom bi daat ne koo ci xam ne am ngay doom walla am ngay sët nga fexe ba sëdd yaag doom ya gëm la nga gëm gëm la nga gëm boo amee dix-neuf sur ñoom ñu am seize danaa leen repasser yéegal leen bañ fekk seen baay ya yéegal leen bañ fekk seen maam ya ah loolu day loolu day loolu day eh, yaakaaru na lool loolu day yaakaaru na loolu day yaakaaru na mu ne góorgóorlu leen rek ndeysaan sunu borom mu ne góorgóorlu leen rek waaw mel ni seen baay ya yombut hmm, mu ne déedéet mu ne mel ni seen maam ya yombut mel ni seen sëriñ sa yombut waaye ku dog yoon wañ jaar rek dama naan la caq teg la ca ñoom lisan ndax ñoom bi ñuy jaar ci yoon wi waruwaay wi fi nekkoon bi ñuy ñëwee ñoom sët yi jaar ci yoon wi waruwaay woowu nekkatu fi waaye yàllaa ngi fi mu ne caq doom ya ak sët ne leen cëpp ca bàyyi yaag maam ya ah allahu akbar waaw waaw waaw maa ngi ci suurtu tuur maa ngi ci aaya ñaar fukk ak benn wala siina maam ya nga xam ne amanoo gëm nañ wa tabaat hum mu topp leen zurriyatuhum seen sëdiya bi imaanin ci gëm alxaq naa yéegal nañu bihim ca ñoom maam ya zurriyatahum seen sëd ya waaw waaw sëd ya dabi maam ya wala zina bàyyi nga xam ne amunoo gëm nañ wa tabaathum topp leen zurriyatuhum seen doom ya bi imaanin ci gëm alxaq naa yéegal nañu bihim ci ñoom doom ya bihim ca ñoom baay ya zurriyatahum seen seen doom ya am ah, mbokk yi kon kat ku yóbbu góorgóorlu ndeke yoo mënees naa dabi baay ndeke yoo mënees naa dabi maam ya te doo mel nañ mel te bokkoo ñoom jamono da a bokk lu ngeen gëm rek sunu boroom xam ne sa jamono mën naa xajam mu mu yéegal la ca ñoom allahu akbar waaye waaye yàlla na ko yàlla def fay waaw sart bi nag mooy eh, al ittibaau waaw bil imaan loolu rek a sart bi topp leen ci lañ gëmoon rek topp leen ci lañ gëmoon rek waaw waaw lii de moom yaakaaru na lool yaakaaru na lool tabarkàlla yàlla na ci yéeg yàlla yéege nu leen ndax ñooñe day fekki leen baax na moo tax bët bu set nga dégg ñu naan ihdina siraatal mustaqim jën lazina nam alayhim waaw waaw euh, ibnu abbas fóorey xeet bi nee na inna allaha azza wa la yarfau duriyata al mumin maahu fi darajati fi darajatihi fi ljanna wa in kaana lahum wa in kaana lam yabluqha bi amalihi li taqarrubi li taqurra bihim aynuhu wa talal aaya Ibn Abbas nee na yowmal xiyaam subhaanahu wa taala day yëkkati njaboot waaw day yëkkati njabootu ku gëm yóbbu ko ca baay ja mbaa ca maam ya ca biir aljanna mu ne tey doom yëg sët yi seen jëf tollut ni seen jëfi baay ya ak seen jëfi maam ya waaye teraangay seen baay ya la ak seen maam ya ndax seen xel dal Ibn Abbas daal di jàng aaya aaya ji ndeysaan ba mu noppee ca waxam ju réy jooju walladina aamanu wattabaatuhum durriyatuhum bi iman alxaqna bihim durriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay waaw Ibn Abbas ba mu waxee ba noppi mu daal di jàng laay ji ndeysaan jànge na ko nag njàng wu dàq nii ma ko jànge waaw fuuf nag ndeysaan <laughs> fuuf tabarkàlla loolu ma nga tam ma nga ca teef téere ba nga ca tafsir al-Qurtubi jukki fukk ak juróom-ñaar xatum juróom-benn fukk ak juróom-benn mbokk maa ngi suuratu Tuur maa ngi ci aaya ñaar fukk ak benn eh, wallazina amanu wa tabaadahum samaxsari nee na fa yajmacu llahu li ahli ljanna anwaa surur bi saadatihim fi anfusihim wa bi muzaawajati alxuur alciin wa bi muanasati alixwaani almuminin wa bi ijtimaaci awlaadihim wa naslihim bihim allahu akbar te dama ca tafsirul kachaaf jukkib ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar lay nekk ci li waxi samaxsari junoon nee na yàlla tabaaraka taala day dajale ahlul jannati dajale leen xeeti mbégte xeeti mbégte la ëpp ca mbégte la mooy mbégteel noflaay mbégteel noflaay tëdd di lekk tëdd di naan te doo xëy dem fenn dépense du am dem marché du am dugg du am mukk kenn du fi jóge taal sa oto jëm ci li ma xam mbaakol ndax ñu fay la loo indi sa kër te eh, lay tàmbali nof lay tàmbali waaw waaw <laughs> nof lay tàmbali waaw bokk na ca nof laa yaa xeeti mbégte yooya ñu may góor gune ca jigéen ña alxóorul ayn juróom-ñaari téeméeri femmes sept cent femmes <laughs> juróom-ñaari téeméeri femmes waaw ma am sept cent imaam Moussa Gueye am sept cent ak yow mi nuy déglu waaw ku ci nekk am sept cent desaan góor ñi nga xam ne daawuñu takk takkuñu woon ñaar jàpp ñett nekk ci stage bu dul jeex mukk nu ñuy yore ñetti jabar ak ñeent wax balaa juróom-ñaari téeméer stage bu dul jeex mukk waaw jigéen ñooña du ñu xaañante ñu tuurante ndox mu tàng kenn du soode sa morom du waxante kàddu yu jag yu jagut waaw bu dee ci jigéen ñi nag ñoom duñ leen may ñaari jëkkër ak ñett déedéet ñoom dañ leen di tànnaloo jan jëkkër lañ bëgg waaw jan jëkkër lañ bëgg ca gaaya dugg aljanna tàmbale ci al anbiyaaw teg ci arusulu ah teg ci al awliyaaw teg ci aqotaab yi ah teg ci abdaal yi teg ci taabiuuna yi teg ci salafu saalih rekk tabarkalla ba ba ba ba jamono koo tànn rekk muy sa borom kër <laughs> léeg-léeg léeg-léeg gis jigéen ju texe jëkkër ja texe sunu borom <laughs> sunu borom ne jabar ji pour ñu delloo ko jëkkër ja mu ne jëkkër jan jëkkër yu góor-góor lu wutoon dañu ne ñoom la xam seen seen jabar yi ne leen merci diw kay moom merci ndax léeg-léeg ni nga yore jabar tax na mu doyal sëkk la ci des muñ dong fa nekk ak nu muy def gone yi mu dem yoom la xiyaam ñu ne ko jëkkër jaa ngi nii mu ne wóo doy na sëkk déet waay mu ne mukk góor ñi it léeg ñu ne sa jabar ji de wax dëgg yàlla mu ngi ci óorul ay nii yu jabar jan ñu ne xanaa sa jabar nogay mu ne waaye doy na ok toujours mu am ci ñaari côté yooyu ndax rek mu ngi noonu waaw mu ngi noonu waaw léeg-léeg mu ne ci leen ndeysaan eh, yonent bi alayhi salaatu salaam daa may Usmaan ibn Affan doom doom ju jigéen doom ja faatu mu may ko rakk ja rakk ja faatu alayhi salaatu salaam ne ko su ma su ma amoon keneen may la gone yee gone yee jeex rek hmm? su ma amoon keneen may la gone yee jeex rek ma ne maire mu ngi fii ci Liberté 3 soriwunu waaw maire Sène waaw maire ku baax la tabarkalla <laughs> maire Sène daa am ab goro gone gu jigéen sëy si ca kër ga ndeysaan ca ca doomam ju doom ju góor ja faatu gone ga téñ ji ba noppi mbokk yi na ko tukkaay ñibbi mun na ñibbi fan ak ah, xanaa seen dëkk ni sax gone ga wax loo xam ne keroog kenn añut mu ne leen ndax damay dem ci meer bu gën ci man meer seen mii walla da ngeen bàyyi ma toog ak meer seen meer seen xëm tubaarkàll ndeysaan ñu indi galaas geeg ndox meeg meer seen xëm rek ndax li gone gi wax mbokk yi gis nga kere bi alayhi salaatu salaam di di wax zeydu ibnu muhammad lu mel nii la woon mu ne bu kenn wax ci zeydu ibnu xaarisa lu ñuy wax mu ne zeydu ibnu muhammad ndax mis naka tey adopté naa ko cel su mbaram ko déet bul adopté nag bul adopté nag wax dëgg yàlla daal di wàcc suratu al ahzab daal di tere adopté bu kenn adopté kenn waaw mu ne daa xaram waaye keroog alayhi salaatu salaam bi ñoom surax biil jël see zeydu ne ko dañ la doon wër ay at a yaa ngi fii mu ne maa ngi fii de ne ko lañ jël si alayhi salaatu salaam ne leen ci wàllu démocratie ak droit de l'enfant waaw teenoo bàyyi xale bi mu tànn comme toll nii mu toll papa ji ne ah waaw ñu daal di tànn ñu ne Zeyd dem fekki sa baay ak toog ak Muhammad lu la ci gënal rek Zeydu dem laxasu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne fii laay toog ñëpp xam yonent bi nag récompensé ko bu kenn waxati Zayd ibn Haarisa di leen wax Zayd ibn Muhammad sunu borom nag déet bul bul aldebte nag li nga def baax na lool gis nga yooyu am na nit koo xam ne ki bu ngeen dëkkee buy bëgg a toxu nga ne alhamdulilahi rabbil alamina waaye am na koo xam ne ki bu ngeen day toxu jaaral na la toxu ànd ak moom jaral na la toxu ànd ak moom mbokk yi lu am solo la yàlla na nu yàlla yéege ala kulli xaal Achamaxsari mi ngi firi laay jooju mu ne yàlla mooy booleel ahlul jannati xeeti mbégte la jiitu ci xeeti mbégte mooy noflaay noflaay bu du dëkk mukk la ca tege mooy ay séet juróom-ñaari téeméeri séet séet yoo xam ne kenn magul sa morom ñaari bés waaw juróom juróom-ñaari téeméeri séet yoo xam ne kenn magul sa morom ñaari bés wakka waay ba ak traba séet yu maase waaw séet yu maase léeg-léeg nga dugg ci avion yi ñu koy jéem waaye da ngay xool ñaa nga xam ne munta munta nekk otage yi ne ci biir di joxe léeg-léeg kenn romb la ci ndeysaan tool ni nogo yi mu ne kii de wax di yàlla ma ñoo tànn xaw mu tax ñu tànne ko nii waaye mu mu ne mëfër tool ni nogo yi kaar-kaar bokk na ca teraanga yooya xeeti teraanga ya mooy teg sa mbokki jullit wettalikoonteeg ñoom am na koo xam ne fi ne ku moom rek ngay dëkkal waaw ku moom rek ngay dëkkal kere ba Oustaz Ahmed Daam di netti ca jàkka ja ka doon def bu toogee këram ab diir rek ñëwaat ci jàkka ja xool yonent bi demaat ñëw xool ko keroog ci jàkka ji la Oustaz Ahmed Daam xëm moom it ci ñi xam la bokk <laughs> waaw xam mënta ñàkk xëm mënut a ñàkk de waaw waaw jékki-jékki rek tabarkàlla <laughs> waaw waaw mënut a ñàkk parce que feu rouge li fekk mi ngi dox rek di tàkk rouge mbaa orange mbaa vert waaye bokk na ca teraanga ya borom bi boole leen ak seeni doom ak seeni sët ku ci nañu indi say doom ne leen ñii yaa leen indi say sët ne leen ñii ci ci yow lañ soqi ko woon di sànn waaw ak am solo moo tax teraanga yooyu bokk na ci kon yooyu boo ñëwee àdduna nag dem eh, te teg tabarkal la bàyyi woo yooyu wala la fi bàyyi mu ngi noonu rekk muy loolu borom bi nee na kon loolu mi ngi ko wax ca mi Asamaxsari ma ngi ko wax ca tafsirul kashaaf jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer juróom-ñaar fukk ak ñaar nee na wama alatnaahum wama alatnaahum min amalihim min shay wama alatnaahum wàññi lu ñu leen wàññi lu ñu leen ñoom baay ya ñoom maam ya ci seen jëf ya min shay wàññu ma ci dara yàlla nee na wàññiwuma ca dara ndax nit léeg-léeg mu wàññi ci luñ ko jox ne ko joxal diw léeg-léeg nit mu wàññi ci luñ kon a joxal diw waaw ne ci barab war di am neuf cent mille ndekete teew mënoo àgg fa ñuy tërale loolu waa ji di la jox lu wuuteeg li nga war a am waaw lu wuuteeg li nga war a am waaw te tabarkàlla li nga war a am mu am lum cay domp di def ci boppam di la jox leneen teew lum la jox dangay jël rek borom bi ne loolu du ko dal mukk wa ma alatnaahu min amalin min shay allahu akbar ku ma sa xëy la nga xëyoon nga fa di tege ku sa gont lu waay mas a def te ci barem lañ koy tëral kiraaman kaati bii naa koy def ndax ñoom yaalamuuna ma tafaluuna waaw moo tax nga dégg ñan naan ñaq du réer borom wax nañ dëgg de borom de waaw ñaq du réer borom wa ma aladnaahum min amalihim min shay waaw duma ma wàññi ca lañ doon jëf ñoom bàyyi duma du ma ci wàññi dara waaw duma ci wàññi dara ba dema ca tafsir ba albaxarul muxiit ab tafsir la mu ne almaana annahu taala yulxiqu almuqassir bil muxsin wala yanqusu almuxsin min ajri sha waaw ne na jàmbaar ja woon démb yàlla dana ci yéegal yaafus ji woon tey te jëfi jàmbaar yi démb ja du wàññeeku waaw jàmbaar yi ja ak yaafus si tey ji sunu borom boole yaafus ak jam jàmbaar ji ak yaafus ma te du wàññi ca jëfi jàmbaar ja dara waaw ah mu ne waaw kullu mrin bi maa kasaba rahin kenn ku nekk la nga fàggu moom kenn ku nekk la nga fàggu yaa ko moom kullu insaanin murtahan bi amalihi bu doon ci wolof dinaan kenn ku nekk la nga fàggu yaa ko tayle waaw yaa ko tayle bu jëlee ko jotee yow dong yaa koy jëli waaw gis nga transfert d'argent yii waaw xale yooyu ñu yónni léeg-léeg ñu yónni la ab xale léeg-léeg muy xale yi bitim réew nga dem ñu laaj la code nga joxe code ñu ne la effectivement daal di wàññi ñëpp xaalis jox la waaw gone yooyu ndegam waa àddunaa man lool nag sunu borom rawacc na mbokk yi bind bi jeexut teg leen seen baaram foofu ñaan borom may nu nu dund ba àjjuma tiweesu ko ñaan ku def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jéggulu soxna yi jéggulu sëriñ si jéggulu sëriñu daara yi ak yaayi daara yi ak dongay daar yi yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen te jaajëfal sunu sponsor yi nga xam ne ci biir weeru koor bi yëpp ñu ngi ànd ak ñun te bu nu wooree tamit am ñu ci des ñoom continuer ànd ak ñun rawatina lobu maam jaare mii nga xam ne jéeg yëpp dégg naa tabarkalla ci ci korite gi ci la ñu doon def seen affaire yooyu euh, affaire ndaw ko ndaay yi jërë ngeen jëf ki leen nekko leen ci wàllu xarale ma di seen mbokk Alioune Badara Socé ci tafsir bi ngeen ànd ak seen mbokk Sall yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen yàlla yàlla defar seeni mbir